gis ngeen booy doon taal gannaaw ba nu baaree fii police yi ñëw dindi ko doon taal fii nga xamante ni taxi jàmbur lañ jël taal gis ngeen boo leen xoolee nii ndeysaan jàmbur ñëw gaare taxeem nga taal ko mu doon lu doy mi waaw gannaaw ba bi nga Gaya waronon waroon nañ ko def waaye ci place de l'Obélisque gars yi interdire leen ko manifestation bi nga xamante ni waroon nañ ko def manifestation interdit bu xoolee marche la booy ni taalee nii boo xoolee ñu ngi ci ginnaaw taxadeer yi bouger mu doon loo lu doy waar la seen politique 221 en direct ngeen am gis ngeen noonu tàq-tàq bi gis ngeen taxi bi ni mu ko boyalee ba mu boy taal ko ba mu taal gis nga daanaka taxi bi weñ kasa la gis ngeen noonu